아빠 jërë ngeen jëf euh, mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek ba tey ñi ngi nii toog ak koo xamante ni kenn dootu ko nuyooleeti ci ak axlu xasida waaye rawatina digganteem ak am Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou saa su nekk ñu koy gis euh, ci àndoom ak Serigne bi mu doon loo xamante ni lu xasida ñëpp ci teg seen bët fa seeni koo dékk rek suñu micro rek mu def rek ay kàddu yoo xamante ni ñaare ay kàddu soññee la waaye ay kaddu jàngat la loo xamante ni ci bis bii ñu nekk tey jii mu mel ni Serigne Moustapha mbooloo mi bàyyi nañ fenn fu nekk ci biir réew mi ak li génn réew mi ngir màggal si fi lii nga xamante ni mooy xasida ci njàngum alxuraanul karim ak njàngum xasida mel ne liñ ñaan liggéey bu Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am mel ne loolu firndeelu na ci bis bi nga xamante ni tey jii ñi ngi koy amal du ñàkk ay kàddu soññe yoo xamante ni wala ay kàddu cant yoo xamante ni dañ koy nësal jëmale ko ci képp koo xamante ni it yaa ngi fi wala nga nekk ci bitim réew di ñu topp ci jataay bi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي جولي بوكي تالبي غينا بونو سانت يالا جولي صلى الله عليه وسلم سانت سيدي توامي خا نما سونو ياكاي تاي اغالك نيغي نوي بوكي جولي ييب ا بوكي تالبي ييب دي لن دوكيل سي بيسو تاد بيغا خامي نه ci la ñu nekk muy bisub màggalub xasida yi di bis boo xam ne nii sëriñ Xamsatu moom sëriñ soo Soaybu moo ko ànd ak muqaddamatul xidma ak mboolem jàngkati xasida yi muy ñi koy durus ak ñi koy jàng njàngum kuréel ak ñi koy jàng njàngum benn benn ak mboolem ñi sopp xasida yi ak mboolem taalibe yépp nga xam ne bis la boo xam ne nii mboolem ñiy def ay bisi de ci réew mi ñooy daje di maase di màggal yi kon bis la boo xam ne dañ ci war a jànge lu bëree bëri liñ ci war a njëkk jànge mooy li yàlla di wax naan wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mooy àndandoo ci genn buum loolu mën nañ ko jàng ci bis bi ndax mbooleem ko yëngu ci xasida yi tey ñëw nga fi àndandoo ak sëriñ Xamsatu Mbàkke moom mi nga xam ne mooy eh, jëwriñ bi ñaareel ba war nañ cee jànge eh, sàmm ndono li nga xamee ne sëriñ Tuubaa da ko fee bàyyi te nit nag amut lu gën a rëy ginnaaw jëmmam ay waxam jëmm ak jëfam ay waxam bokk na ci li gën rëy ci mbiram kon xasida yi bu fekkee ne day waxe sëriñ bi doonoon jumtuwaay bi nga xamee ne ci la doon liggéeyal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi kon war na ñu sàmm ko baax a baax a baax li ñuy def nag bokk na ci li koy sàmm bokk na ci li koy yëkkati bokk na ci li koy xamle ba nit ñi gën a xam ab dayoom ak ab tolluwaayam ba tey it lañ ci mën a jànge mooy eh, nit ki buy dund ci àdduna ji war naa sàkk ci coobareem bis walla waxtu woo xam ne nii da koy jël lépp mu jox ko yàlla boromam te bis bi lépp dañ ko jox yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ndax bi ñu xëyee suba ba léegi nii ba bis bi jeex li ñu fi yendoo lépp luy delloo fi ci yàlla la mooy jàngal xuraan ak xasaayit ak tudd yàlla ak istixfaar ak salaatu ala ak bernde te yëpp luy jegeel nit ki boromam la ginnaaw loolu nag ñu ngi ciy soññee bu baax a baax a baax mooy képp koo xam ne nii yaa ngi yëngu ci xasida yi ah topp bi nga aw sas lu baax nag dañuy wax ne manding la jàmbaar dëgg koy soobu soobu lu baax yomb na waaye rafetal ko yeggale ko moo mooy di jafe kon képp ku soobu ci liggéey bi na am eh, yitte ak ak farlu ak ak takku te laxasaayu ba ba rafetal ko ba yàlla dogal nga yeggale ko fa mu war a yegg ndax xasida yi kat jumtuwaay la boo xam ne nii képp ku ko rafetal yàlla dana la da nga yegg te yàlla incha allah dana la yeggale kon nañ farlu bu baax a baax a baax te fonk ko wormaal ko sellal ko jëm yàlla rek tax ginnaaw ba it di ñaanal Serigne Hamsatu yàlla wéral ko te gën ko yàggal te gën koo saxal ci liggéey bi nga xam ne ci la nekk ak mbooleem ñi ko àndal ñëpp di ko ñaanal ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa yoon wi te lii bokk ci ay yitteem nga xam ne mënees na ne Serigne Mountakha mooy jëwriñu dëgg mooy dëgg dëggi jëwriñu liggéey bi kon bu yàlla defee mu jiite yoon yëpp kon ñu ko ciy ndokkeel bu baax a baax di xam ne dañ ko cee nekkal rek waaye yëf yi yëfam la di ñaan ñaanal ñëpp ñoo xam ne jëf nañ ci ci anam gu mën a doon yàlla fay leen seen jëf nangu leen ko doon leen wér ak kattan ba ñu gën koo man ci barkeb Sëriñ Tuubaa mboolem liñ fi jàng it yàlla na ko yàlla tasaare ci dëkk bi ak ci réew mi ak ci àdduna bépp muy jàmm ak kaaraange ak yokkute gu wóor a wóor wax dëgg am nañ ci yaakaar ndax benn kaamil rek mën naa aar àdduna ak li ci biiram xasida it genn xasida ko jàng te sellal ko mën naa aar àdduna ak li ci biiram te bi ñu xëyee ba léegi li fi jàng ci alxuraan ay lim yu bare bare la xasida moom waxaaliwuma ko ay junni junni junni la te xasida yi lépp ngi ci biir xasida guy ñoddeng ci biir guy jayeng ci biir guy sa guy aarang ci biir lépp loo xalaat rek mi ngi ci biir xasida yi kon am na yaakaar bu baax ci ne lii waxuma la réew mi waaye adduna bi mën na ko yor kon yal nañ ci yàlla dajaleeg ngërëmul sëriñ bi ndax ngërëmul sëriñ bi rek lañ ci sàkku jërë ngeen jëf sëñ Modou ñu ngi sant ñëpp ak presse bi ndax seen taxawaay rafet na lool ndax yitte ji lu mu rëy rëy rëy presse bi mooy tax mu mën a yegg fa mu war a yegg kon ñu ngi leen di jëfal bu baax ci turu Serigne Hamsatu nag laa ko waxee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah jërëjëf Mbacke Balla ci kàddu yu matala yooyu. mbokk yi nii rek uh, lañ koy wéyee ki yéen lépp loo xamante ni rek am na fi ñuy indil leen ko kon nees tuuti ak suñu yeneen élément asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu